salaamaaleykum maa ngi si kàddu yi dafa am ci lu ma bëggoon wax mooy affaire Youssou Ndour bi classement bi ak euh, Bob Marley ak Michael Jackson ci laa bëggoon wax et après aussi ma ñëw tuuti ci soi-disant Queen Biz la ma ñëw ci moom tamit tuuti incha allah man dama ne nit loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ bañ loo ko buggul buggul buggul buggul bu doon sa doomu réew ñu tànn lu doy noonu. ka bëgg yow même ak loo ko bañ bañ bañ war nga génn na félicitation ndax tubaab du demee leen ci teyu bakkanam te kenn du ko corrompre tamit xëy na bu doon Afrique sax nga ne xëy na mooy loolu ndax des fois ñu dégg dégg africain ci genre yu demee noonu waaye tubaab xool ku ci nekk sa sa sa xeetu liggéey xool ku nekk fa ngay waye ñu xool bu Michael Jackson xool bu Bob Marley xool bu Youssou nduur xam ne bu Youssou Ndour leen féete kaw ndax way na lépp macha allah yaa ngi dégg moom deful ay challenge de ñu génn rek ku ci nekk mu def challenge ñu génn di di challenge ay wayam déedéet déedéet kàngam fa muy waye la ñuy xoole ñu jël ko tekk lañ ko teg benn soi-disant queen bis koo xam ne tekkiwul dara hmm? bëgguma sax di wax ci nit yenn yi ndax man lu baax laa xam bu ñu wax leen nit lu baax ma ñëw wax ci mais comme moom maanduwul moom tamit bay wax ci yëfu jàmbur saam ko ci réseaux sociaux yi ci yi la ñuy duggaat wax ci moom yow mënoo woy amoo réputation bu baax mënoo hmm? woy mënoo dara ba pare topp si nit ñu baax ñu ne da doo leen may jàmm yow mënoo may nit ñi jàmm yow hmm? yow ku ñu tudd rek sa xool bi di sël sëlsëli lan la ku ñu tudd sa xool bi di volcan du Youssou Ndour kese de yow ku ñu fi tudd nga nga volcan taayel nii nga fi dafa amee fi Wally Seck boo génnee ci kii demati ci keneen boo demee ci kii demati ci keneen yow ñàkk jàmm ji ne ci yow lii mbaa jàmm na ci yow yow te ñoo jël àddina galas gi ne ci àddina bi yëpp xóoyalal la ko ndax xëy na nga a tane na xam la la lay yóbbu saa xëyee di gën a wow di wacci wacci mel ni doomu pepp dugub suñu kaw nii di wacci wacci mel ni doomu sippa suñu kaw nii bañ a may nit yow mënoo wàcc ndey jàmbur ji yow sa tungu xengi rek ci dugal yu sundur bañ ne doo ko wàcc yow lan la hmm? kenn bëggul di wax ci kenn ndax man bëgguma di wax ci kenn da ku ci nekk am nga loola day sa barke mais comme nag yow yow amoo amoo amoo maanu gu doy nii te sa tur nga xeeñ gi si doomu jàmbur dinañ génn wax si yow ndax yow di wax si yow sa perte de temps la jël photo yu sundur di ko teg di la teg ak sa réputation bu bon erreur weesuwul loolu mais nag amuñu pexe ndax xamoo sa bopp te kon il faut nit ñi wax la sa bopp mënoo bocc ndey jàmbur ji mënoo ko yéene li ko yàlla may noppali sa jël sa tuur nga xeeñ gi hmm? te continuer sa yëfu caaga yi ngay def. di xooy góor ñi um nga dëkk bi yëpp hmm? yow loolu mooy sa professionnalisme xëy sal sa lu bon di xooy nit ñi um ñëpp loolu mooy sa professionnalisme mais mënuloo leneen lu dul loolu yow mënoo woy mënoo dara bëgg a rey nit ñi wax ju bari hmm? yow douche bi wax ma la douche bi waaye chaise anglaise bi rek bu ñu la fa tegoon wóor na yàlla euh, defal la fa concert doo ko feesal ba pare nga bëgg a rey nit ñi lan la mënoo yéene ndey nit ñi jàmm ndax nga yàlla may la jàmm gis nga boo yéenewul ni ñu jàmm xam nga lan mooy la la olof wax rek xaw ma la taasukat ba wax ku bëgg li yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex waaye gis nga ki bañ li yàlla dogal di nga sonn jaaxle te kenn du ko faj te sa dara du leer moo la dal nii gis nga njombar loo ko bañ bañ bañ bañ nangul ko gudd noppam ak mën a dawam ak bëgg karootam nangu la doomu jàmb ji li ko yàlla may gis nga Youssou Ndour bu doon samp kese la léegi bi fekk na catu nañ ko wala ñu wàcc na bu yàgg ndax samp nit a mel noonu mais gis nga samp yàlla xam nga lan moo cay gën sànni ca matt ba ca yàlla sànni ndax nga mën am jàmm ndax yàlla lay neex rek mu wàcce kamu kamu fal yàlla lay neex mu gën kaa continuer di ko fal te looloo dal Youssou Ndour loolu la ko yàlla may nañ ko ko nangul ndax ñu am jàmma hmm? yow yow da waroon a fier ci li sa doomu réew yow nga ne Sénégal ngay namoo foo dem nga ne drapeau ngay dem dañuy demoo fen tojoo fen bay dem fen sax nag mais maa lay mbay bës noonu tuuti rek hmm? foo taxaw ne ci Sénégal laa dëkk sax ñu ne ah dëkk Youssou Ndour mooy kañ tabax lii nga mën a am tuuti you know ne yow xool bu bon moo la yóbbee li nga nekk nii man I don't understand that nit da am xool bu rafet am xool bu neex ndax nga mën a go too far le américain naa you not gonna go yow moo la dal you not going nowhere ba pare di sonal nit ñi yow lan la bu ñu Youssou Ndour moom bu ñu ko tuddee rek yow lañ ci njëkk gis yow ñàkk jom. Hmm? moo tax yow fu ñu tuddee Youssou Ndour ngay ñëwaat di wax yow barki démb Ndiaye la la daal fii gisoo ko yow ku la gis sa bët yi ni ngay xullee ko ñun ñu xam nañ ne wéroo ñun xam nañ bu baax ne wéroo de hmm? yow wax ju normal bu àgg sax mënoo ko gis nañ lox si kaw nit ñi yow matu vint heures la nga koy tuumaal ñu yónnee la ko ndeke yow yaay darañkat bu mag bi yow taxaw ci réseaux sociaux yi di jooy quarante quelques millions mënuma koo fay fan laa koy fay ba pare nga bëgg sonal doomu jàmbur ci yow mënoo may ne nit ñi jàmb yow hmm? nga ni doomu crever amoo benn importance ci dëkk bi pare bëgg sonal nit ñi yow mënoo ñu dimbali yow ak mel ni yow laa wax nag ndax nit ñi seen xol yi neex na am na ñoo xam ne ndeysaan lu waaye am dañ la koy yéene kontaan ci félicité félicitation yaa ngi daw ci réew mi mais yow mi nga xam ne yaa génn wax nga mel ni doomu pepp dugub si kaw nit ñi duggal ci réseaux sociaux yi nga xool la nit ñi di waxal man damay gis ne nit bu fekkee dafa bëgg coow comme ni nga ko bëggee nii bëgg a boo duggee ci réseaux sociaux yi sa xol dina neex yow boo duggee yow mi nga xam ne yaa wax musiba nga dégg ci wax ju neex waaye boo duggee wax ju bon rek lañ lay waxal foofu gisoo loolu yaa ko gën a gis te amoo jom nga ne doo am jom yow. dafa hmm? ci doomu jàmbur rek doo leen wàcc parce que lan sa morom yi raw hmm? leen uti jëkkër te sol coolin ku baax am réputation bu baax moo gën nga topp ci doomu jàmbur yu baax yi rek di leen waxal lu bon parce que baaxoo moo tax bëggoo kenn ku baax hmm? fi mu ne loo bëggut a dégg rek di nga ko dégg ndax sa bon gi nga bon. heure bi waroon nga fekk nga dugg ci dëkk bi def fa lu baax ñi ñu toog di la ko waxa ah. waaye yow lu luñ lay tudd rek luñ la tudd leen ci leen lu baax parce que lan moo la ko yóbbu xol gu bon mënoo jël sa xol bii nga jël galaas nga dugal ko ci boole ci tuuti njaram sow waaw ah, dangay perdre loo ni temps sax di énervé nit maa ngi jéggulu ci wax ji mais nag lii mooy dëgg nañ leen bàyyi soxor gi ñi nga xamante ne ñoom laa ko sañ a wax mooy ñi mel ni clean bis ñi nañ bàyyi soxor soxor baaxu ci doomu aadama nit boo bëggee yàlla di la dimbali da ngay yéene nit ñi jàmm ndax nga mën di am jàmm gis nga ku dul yéene nit ñi jàmm doo am jàmm ndax ñàkk jàmm moo dal clean bis moo tax lu ñu wax si Youssou Ndour wala ku mel moom rek li moom ngay njëkk a gis waaw parce moo yee bëgg a bës ndax yow munoo woy munoo dara nit ñi rek yaa yéen nag di langaam ci ku mel ni Youssou Ndour ndax nit ñi xaw a mën a wax ci yow waaye duñu wax ci yow jàmm ndax la ñuy wax ci yow dara baaxu ci kon war sa nga waroon a duggee dem xaru ji ñàkk nga jom trop util jëkkër moo gën nga topp ci réseaux sociaux yi di xooy góor ñu Sénégal gee um nga ko topp sa tuun nga xeeñ ji di ñu ko juutu rek di ñu bëgg a rey mënul may ñu jàmm ah jéggalu juste félicitation yàlla na la ndam di jik te yeneen yàlla nañ ñëw gis nga ni ngay xëyee di ko yéene lu bon saa yoo xëyee noonu la yàlla di ko yéene lu baax yëf yi di gën a ñëw ngay volcan xaw ma foo tëdd wala foo nekk waaye war nañ dem xool sa xol bi ndax arrêté